Ousmane Sonko n'est pas. Eh, Françoise Ousmane Sonko n'est pas candidat. Euh, Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall. noo ci noo je le connais pas très bien. Euh, je le connais pas très bien Pape Djibril Fall euh, et gis naa ni fan yi mu ngi mu ngi attaqué wu à mu ngi attaqué wu à Ousmane Sonko. parce que Ousmane Sonko da leen mépriser ñoom waa une partie de l'opposition dafa wax ni que ñooñu Macky Sall la ñuy liggéeyal. mais Ousmane Sonko yàgg na fenal ay sénégalais ñoom ñu noppi nañu xool léegi c'est à leur tour chez le coiffeur parce que Ousmane Sonko yàgg na fenal ay sénégalais ñoom ñu toog noppi ànd ak moom Adji Sarr ci boppam Ousmane Sonko da koo fenal parce que dafa yegg ci moom mu accusé ko viol ñoom ñu génn ànd ak Ousmane Sonko maanaam jàppale ko ci déni de justice bi nga xam ne moom la bëgg ñu def en à l'endroit de Adji Sarr donc man tey bu leen Ousmane Sonko saaga ñoom ñuy tëb. di pousser des cris d'orfraie sama yoon nekku ci man ni ma ko gisee mooy c'est un Sénégalais qui n'a pas fait plus que les autres mais qui a apparemment euh, des mécènes derrière lui parce que xam naa ne amul moyens yi moyens yi mu déployé depuis ba mu mën na am dafa am ñu nekk ci gannaawam yeah pour why not et puis mën na nekk assemblée parce que quand même am na niveau au, au, au niveau au-dessus de la moyenne et c'est vrai qu'il se mouille jamais il se mouille jamais moom moom du jën du yàpp boo ko dugalee ci day dugg lu sol lu weex tàll dugg ci barigo diw tiir weex génn weex tàll loolu moom yàlla may na ko loolu te sénégalais Pape Djibril Fall euh, il il n'est jamais vraiment il n'a jamais des opinions tranchées il est toujours en train de faire l'équilibre pour faire plaisir à tout le monde man du sama genre nit parce que man j'aime les gens qui ont le courage de leurs opinions et qui ont des positions franches et qui se battent pour des choses claires ok mais toujours dans les équilibres di def comme gymnastique euh, nu mu tudd euh, flibustier là équilibre euh, ñooñu ñuy tegal ligne yooyu noonu te ñu ciy dox c'est ce qu'il fait tout le temps moo tax ma ne la du jënd yàpp boo ko dugalee ci barigo dowtiir léegi dina wax la muy wax te dina ci génn ba mu weex te te chemise bu weex tàll lay génnee bon c'est pas mon type en politique je préfère les gens qui ont euh, des positions tranchées des positions fortes et qui mais s'il est au euh, bu bu demee bu demee assemblée. Benvenga peut-être qu'il servira à jouer cet équilibre là au niveau de l'assemblée. d'accord.